你的。 وذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل و है تكبير تكبير ما شاء الله محمد ماحي ها ليغا خامني موم ليغا خامني موم لاي واجال كي خالاي موكال سوا شاك اني نيو فسل لين دا موي كونكور سينيكو بي جيري با نيغا خامني نيوي تيامبال خالاي ba xam mokkal nañ wala mokkal nañu seen ahkaamu tajwid yi jaar na yoon wala jaar yoon moom mii toog di Muhammad ci la bokk ci la ko yàlla boole te ci daari daari bi nga xam ne mooy cosaan nekk bële ca pasteur oustaz Mansour Samb hafizahullah wa raahu moom moo ko yor moom mii ci ndongo yi ba jiitu ci la bokk alhamdulilah yàlla wërsëgale ko mu génnoon dem jàngi ba ñëwaat Ah, la sëriñam bëggoon namoon ci moom mu def ko dama ñëw moom it ubbi daara comme moom ma nga nekk fee ca Tiwaan Pël si dana ma fa la yor daara moom macha allah waaye ñi nga xam ne ñooy ñemmeeku xale ba xam mokkal nañu wala mokkaluñ seen ahkaamu tajwid yi jaar nañu wala jaar yoon moom mii ca la bokk alhamdulilah moo toog ngi suñu wet te lu mu ne mumtaaz rek da naan ko mumtaaz <laughs> allah. kon jazakumullah xayran déet sëriñ moom da mën na jàngal nit ñëw ba ba ba raw ko loolu na moom yàlla def na ko ci moom dañ koy sant yàlla <laughs> kon kon ñi woo